pour wax la ni jikko doole la ndax dana tax yàlla wallu te comme yàlla ëpp ñépp doole wallam doy na ndax la buuru tugal ba defoon xaw xawma Charles X laati xaw ma seeti pap ñëw ba ci pap bi mu sukk tey buur bu ko mësula def mukk foon jaaro pap bi ni ko may ma nu sukkandoo raamandoo maak yow ba ci statue Isa ibnu Maryam nu ñaan fa mu musal sama soldat yi ci front bi parce que mën naa xeex ak buur yi wante mënuma xeex ak asamaan te wàcc na ci ñoom barey genn wàll gi ba noon lañu mujj def yàlla sowe ña fa des pour wax la ni lu jikko mënul bu ko doole jéemee it du sotti lu jikko mënul lu jikko mënul bu ko doole jéemee itam du sotti moo tax mag ñu amul morom lañ tabarkal la tabarkal